résultat woo xam ne ab alaxam moo ko seet ca àll ba mantulaay mhm. boobu du am crédibilité ci ñoom de mhm. du loolu la wax mhm. moo tax mu ne li ñu seet ci gone gi moom daal avant muy def déposition ah loolu daanaka entre guillemets valable lu voilà ci ay waxam nga wàcc ñëw ci suuf ci da ngaa xamoon Sonko waa wala déet. bu mhm. tontu na ca. Ndeye Khady Ndiaye alaaji tontu na ca borom salon ba. Mhm. ci même ci même question yi. waaw waaw. Mhm. tee ma teg wala ma sapote. continué la. <laughs> li ngay sapote yi dina xarew. procureur de la république ne. Mm. borom salon bi ci boppam. Mm. nañ leen ko déglu. ñu koy déglu. kooku ki mu jur juróom-ñaari weer la am prématuré. gone ga mënta génn fi mu ne. dégg nga. commandant bi ne ko kon fekki ko hôpital Fann. fa ko dégloo. Fann. dellu si waat procureur ne waat. nañ leen ko dem jëli ñëw garde à vue ko. Mhm. médecin yi ne xale bii mënta nàmp meew artificiel yi ñuy defar meewu ndeyam rek la mën a nàmp waaw xale bi mënta génn ci ngelaw li te ndeyam procureur nee na dikk commande naa ci mbaaxam waxaat ko procureur alaaji mhm. procureur ne ko yow sa xolu yërmande yi nga war a bàyyi demal jëli ko commandant bi nag. Euh, capitaine bi. ci kaw gàttal daal dama koo gàttal nag ndax wax ji dafa xaw kii gudd. compliqué. waaw yii daal bokk na ci li mu wax ci dossier bi. ah. dégg na ah. mën naa koo dugal nag. waaw dugal waaw dugal la. ah na dugg. Chimère ana capitaine Touré. waaw mbokk yi nag euh, tey ñu ngi nii seq kon waxtaan ak euh, le capitaine Oumar Touré officier wu gendarmerie nekk tamit euh, section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane moom capitaine maa lay nuyu. waaw maa ngi lay tontu. waaw laaj bi nga xam ne nag dañ la koy laaj daal toog nañu ba dégg ne da nga sa ndomba tànk te ñu ne dossier xale bu jigéen bii di aji saar ak président Ousmane Sonko yow lañ ko joxoon lan moo waral nga tekki sa ndomba tànk. effectivement Mohamed da nga d'abord mu nuyu sénégalais yi surtout ma nuyu sama maam Koumba Touré boo xam ne mu ngi village. maa ngi nuyu aussi sama pap ak sama yaay. comme je vous dis il y a de cela huit ans je suis à la gendarmerie je suis officier de gendarmerie. voilà j'ai fait deux ans à la section de recherche. durant les deux années que j'ai fait à la section de recherche j'ai rédigé ou corrigé plus de mille cinq cents procès verbaux. Malheureusement, je tiens à témoin ceux à la section de recherche. Malheureusement, que ma crédibilité a été remise en cause, a été remise en cause. Donc ce qui fait que aujourd'hui je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour ñu yegg ko mais bii moo tax ñu may topp ñu may déglu ñu may xool samay déplacement en fait gis nga balaa may egg si lii gis naa dem naa rencontrer sama commandant ma expliqué ko ne ko mon commandant moom xam na ma il me connaît très bien il a entièrement confiance en moi et sa jeunesse benn waaw et je sais qu'il nga quand je vous donne ma parole je la tiens je lui ai dit mon commandant gars yi ñu ngi may topp te ni ñu may toppee xam naa ne dañuy déglu parce que dañuy anticiper samay mouvement donc s'il continue comme ça je vais démissionner moi j'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible c'est-à-dire man sama principe mooy la crédibilité Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de, de cette démission. xam nga lu tax ma jël décision wax ak sénégalais bu ma publier sama démission sama page Facebook ay autorité gendarmerie woo nañu ma li ma ne mun nga wax ne que yow sa page Facebook que dañ ko piraté c'est pas le haut commandant qui m'a appelé ni le c'est des autorités avec qui j'ai de très bonnes relations ñu ne ma mën nga wax ne dañoo pirater sa compte ma ne ko non ça c'est moi qui l'ai écrit que à un certain moment je donc c'était c'était mon honneur qui parce que bu ñu ma woowee di ma wax ne naa wax ne que dañoo pirater sama compte ma ne non je ne dirai pas ça parce que lii man maa ko bind mais ba léegi waxuma dara mais lendemain bi mooy la lundi on m'a informé que dafa am benn docteur bu ñëw sama bureau pour constater ne que j'étais en état de démence c'est-à-dire que dama fa dama dof quoi pour xool waaw gis nga loolu pour man c'est remettre en cause même eh, l'intégrité de la gendarmerie am nga booy xeexal dara bul woon ñi ñi Sénégal bu ñu ñu xamee foo dem doo fa egg donc il faut créer ce qu'on appelle la diversion je suis parti à Touba mais là l'objectif de cette vidéo C'était pas pour faire croire aux Anglais c'était pour faire croire aux Anglais j'étais à Touba kon il allait me chercher à Touba xam nga naan foofu de léegi ñi la léegi ñi ma doon topp mooy waa renseignement c'est-à-dire y a ce qu'on appelle les renseignements c'est-à-dire je voudrais pas trop développer cest aussi dem ba divulguer beaucoup de choses mais xamal ne c'est l'État du Sénégal qui a engagé des personne yoo xam ne ils travaillent ñu may topp c'est-à-dire c'est pour voir am nga affaire boobu fu mu jógee c'est quand le procès verbal de Adji Sarr a fuité c'est-à-dire bu ma defee sama enquête ba pare man ak commandant Abdou Mbengue xam nga commandant Abdou Mbengue def enquête bi man la woo si bureau am jox ma enquête bi te bu may jox enquête bi aussi c'est le fruit du destin c'est-à-dire moom bu mu koy def defu ko ndax. Euh, man fii laa dëkk ba xoolee laa dëkk c'est parce qu'il a confiance en moi et il sait que jamais été partial mais nag toutefois saa yu ma mën mënee jàppale nit te yàlla tax dama koy jàppale cest dire tout le temps quand je sais que injuste je me débrouille à ce que la personne ne pas l'injustice je trouve un moyen de l'aider parce que moi c'est ça mon principe Adji Sarr bu ma ko bu ma commandant bi boolee ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma njëkkee wax mu ne ma tonton est-ce que lii duma créer problème kaamil baa ngi ni balaa may commencer en fait damay waat c'est-à-dire man kenn xamee wu ma caaxaan je suis un très bon musulman ma ne ko lu tax ngay posé loolu mu ne lii mu ne lii est-ce que sama patron dina ko yëg ma ne ko kan mooy sa sa patron mu ne sama patron mu ngi hôpital Fann quoi ma ne ko ma ne ko pourquoi mu ne ma bu ko yëgee dinaa am problème donc bu mu imaginer nit di porter plainte contre c'est-à-dire le, le, premier opposant d'un État africain di la laaj est-ce que patronam dina ko yëg est-ce que bu pensez que nit ku conscient dina wax loolu ensuite au cours des auditions bu ñu commencé auditionné ba pare ma ne ko ma ne ko aji jox ma sa carte d'identité xam nga foo jël auditionné nit vous prenez d'abord sa pièce d'identité nga ñëw nga nga nga nga enregistré ko am nga nga enregistré d' abord son nom ensuite vous demandez à la personne de de de vous dire le nom de son père de sa mère et tout ça. mais dans toute son audition lu mu wax rek day bëgg a génn di bëgg a laaj ma ne ko fii nag bu ñu commencé dañuy dem ba pare. Adji Sarr génnaat Adji Sarr après quand j'ai fini avec Adji Sarr euh, il fallait maintenant entendre un de ses amis Sidi que j'ai entendu Sidi bu ma ko dégluwee ba pare. ils sont sortis il y a le capitaine Diouf qui est venu me rejoindre au bureau mu ñëw mu dugg si bureau bi ma expliqué ko ce qui s'est passé après mu ñëw si audition mbay bi Sidi Mbaye mu bokk si léegi avec les questions qu'on a posées bu ñu paree Mbaye aussi il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses mu génn et que capitaine Diouf génn bàyyi ñu foofu parce que dañ ko woowoon sur une autre affaire léegi Mbaye aussi quand il a fini il a signé le PV il revient vers moi il me dit est-ce que duma si am problème yàlla mën a may est-ce que duñu si ma ne ko bu fekkee ne li ngeen di wax am na mais y a pas de souci ma ne ko ici léegi quand j'ai fini avec cette fille je parti j'ai appelé euh, la patronne mooy la fille la femme qui s'appelle Lihadi Niang ma ne ko madame ma ne ma je suis à de de ma ne ko mënoo ñëw ñu entendre mu ne ma non non euh, sama doom et là j'ai accouché d'un enfant prématuré de 7 mois. Donc je suis hospitalisé et l'enfant a besoin de ma chaleur. Donc il faut me Aussitôt après, genre, yo, je ne, je ne, je ne pas. une personne me dit ça, que mon aimant des fois am ben situation boo xam ne da koy très déplacé j'ai demandé la permission au commandant ma dem fekk foofu ma entendre ko j'ai constaté sur place effectivement que y avait ça mais Ndeye Khady Ndiaye aussi expliqué ma yëpp ñu pare Euh, quand on a fini les auditions et tout ils m'ont expliqué de façon les PV d'audition jarul ma koy wax sénégalais yi yëpp gis nañu ko quand j'ai fini donc là il fallait convoquer l'honorable député Ousmane Sonko pour mu ñëw après avoir entendu tous les témoins fait tous les actes je voulais aussi revenir sur un fait gis nga des prélèvements qui ont parce que Adji Sarr bu ñu ko entendre ba pare c'est-à-dire il fallait l'amener à l'infirmerie pour ñu examiner ko xam nga nit bu waxee ne dañ ko violer dañ koy yóbbu souvent le médecin regarde et j'ai demandé à un gradé de l'unité mu jël ko yóbbu ko yóbbu ko à l'hôpital principal pour ñu xool ko mais il s'est trouvé que au lieu de l'hôpital principal ils sont partis à l'hôpital général de Grand Yoff en général on va là-bas alors que la fille dans son audition lenn loo xam ne nee boo moo ko bind que moom guddi gi dañu ko jël yóbbu c'est ça les gens ont ma dafa dem ñu yóbbu ko foofu on l'a mis sur une table ñu xëccal ko ay affaire après def ko si affaire denc donc je me suis dit que ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la nuit donc ce prélèvement là il n'est pas il n'est pas crédible parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là n'est pas recevable c'est-à-dire ñun def d'abord réquisition parce que après xamoon loolu fu mu jógee donc ça c'est une qui peut être remise en cause en tout cas à la section de recherche commandant Abdou Mbeng et toutes les personnes qui travaillent là

pour que la personne soit prise en compte tel qu'il le faut. mais yéen principal ngeen doon yóbbu. principal lañ doon yóbbu. mais pourquoi yéen yóbbu non c'est pas un au on dit gradé. waaw gradé c'est c'est MDL chef. waaw nga jël ko. waaw boole ko moom mu yóbbu ko principal. sûrement xam nga comme. mais pourquoi ci diggante bi ñu yóbbu ko c'était où. là je ne sais pas pourquoi mais sûrement. comme cette fille là elle était innocente. xam naa il a fallu faire croire que kooku moo ko kooku moo xam li mu dal li ko dal ba pare. c'est toujours ça c'est toujours dans les manipulations que kenn kenn moo ko war a wax ne médecin bale xam na lu xew nañ ko yóbbu foofu moom mun na def sinon nous normalement on l'amène à l'hôpital principal euh, amener une convocation pour l'honorable député Ousmane Sonko j'ai pris la convocation j'ai pris mon véhicule je l'ai écrit d'abord un SMS ne ko bonjour honorable député Ousmane Sonko je suis le capitaine Touré officier adjoint à la section de recherche on a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorgui, je me rappelle pas cité Kor Gorgui waaw mu jox ma adresse bi. Le lendemain, je l'avais dit que je viendrais à 10 heures. À 10 heures, je suis pas venu, il m'a réécrit un message pour me dire monsieur Tiré, à quelle heure vous Je dis que je suis en route. J'ai pris véhicule, je suis parti à la cité Kor Gorgui, je lui remis la convocation qu'il de recherche. Quand C'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu arrêté ma ne ko ah commandant la femme là elle a un enfant prématuré de sept mois kooku mënul dem de mu ne ma ah j'ai informé le procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonnal bi bu fekkee ne damay fen yal na ma yàlla toroxal procureur bi ne ko commandant yow sa xelu yërmande bu mu taw il faut plutôt faire appliquer les principes de Jeanne waaw comme prévu le commandant m'a dit exécute les ordres je suis très loyal à mon moom mi xam na ko je suis parti j'ai exécuté je suis j'ai dit à la dame je l'ai même pas informé ah je ma ko ne kaay bu mu ñëwee sama bureau je l'ai pas dit commandant bi nee jàpp la dama ko ne vous allez être placé en garde à vue vous avez Donc, comme on a remis une convocation au député Ousmane Sonko, il devait venir. Et pour, pour accéder à lui, c'est-à-dire, c'est pour vous expliquer, je ne parle pas de complot, je n'ai rien On, a demandé d'arrêter la dame. Et quand on a demandé, quand on a expliqué au procureur ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifié la garde vue. Mais avant la notification de la garde vue, dès qu'on était aussi, je l'avais écouté quatre fois. mais à titre de témoin parce que je n'ai jamais imaginé que mais toutefois je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire boobu laa ko wax ne madame moi j'applique les ordres de mes chefs mais je vais vous appeler un avocat te avocat bu ma lay woowoon c'est pas un avocat boo xam ne mbirum xaalis lay toppee bu fekkee ne c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains humains xam naa ne kii il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu jàppale la vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître Bassirou Baldé qui est sorti une fois en parlant j'ai appelé le maître il est venu dans mon bureau je l'ai expliqué sans pour autant aller dans les détails de l'enquête il fait son travail je fais mon travail donc après la notification c'est prématuré c'est un prématuré donc allons-y maintenant arrivé à l'hôpital j'ai dit à l'avocat que cette dame si elle se sépare de son enfant l'enfant va décéder pour moi, c'est ça la justice. Quoi. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mi la pression sur l'État et les gens ont lâché. Parce que

delluwaat euh, ginnaaw tuuti balaa ngay wàcc ci. waaw Adji Sarr bi mu lay wax naan la. Hmm. sama patron baat du a yëg. waaw Sidi Mouhamed Mbaye tam ne la. Hmm. baat du ma ci am problème. waaw léegi ginnaaw audition ba pare ñu ñëwaat yow naan la ñun baat ci am problème. waaw. maanaam kon daal dafa nekk nit ñoo xam ne dañ leen doon utiliser lañ xanaa. en fait en tout cas moi c'est la première fois que ñu violé nit mu ñëw sama bureau porte plainte et après muy dellu. y de personnes qui sont mortes y de problèmes gis nga pourquoi j'ai demandé après muy dellu explique ce qui s'est passé gis nga bu ma demee ba remettre sama démission donc j'ai besoin d'expliquer que nit ñi yegg après je vais rendre à mes autorités militaires ils faire peut-être non oh. gis nga yaakaar naa ne man bu ñu may jàpp c'est-à-dire j'ai pas peur que ñu jàpp ma gis nga formation bu ma def moo gën a métti ay jàpp tous les responsables dans cette affaire une enquête doit être ouverte ñooñu ñëpp ñu jàpp leen le procureur vraiment yaakaar naa ne bu ñu la waxee loolu war nga nangu mais nga wax loolu ba ñu dem hôpital on a créé un scandale là-bas hôpital bi je tiens à témoigner tout ce foo xam ne des enfants sont en réanimation là-bas. man wax naa li may wax cest à bu ñu fekkee ne man li wax nii ça vaut la peine. que le procureur de la République démissionne ou que le ministre de la Justice démissionne. Non, de l'OLEC, c'est parce que comme je vous dis, mes ont été bafoués. ko deful parce que le procureur nous a mis une telle pression qu'on pouvait pas terminer. ça non am na lu des y des j'ai le carnet de déclaration. l'honneur de la gendarmerie en fait la gendarmerie dans cette affaire est restée debout. ne di ne di surveiller. waaw maanaam Sonko dafa am sax ay militants. waaw dans l'armée. demee këram que j'ai eu un contact avec Sonko wala avec une personne autre que peut-être il y a certains avocats moi je suis officier de gendarmerie

tout ce qui ah, m'a <laughs> ah. bu ñu ñi xam fi ngay dem doo fa yegg moo tax tu es obligé damay dem après SR c'est-à-dire moi je pense c'est ça qui ñi xamee ne man dinaa wax dara mun nañ ma rey donc léegi ma wax benn yoon di ma xam bi rien ne vaut d'aller affronter la mort. Le général de Gaulle, quand il appelait les Français à résister, il était à Londres. il n'est pas venu se battre pourtant il est arrivé à convaincre les Français donc bu fekkee ne yaakaar nga ne yow li ngay wax mun na changer dara jarul ngay dem xeex toogal rek nga wax ko bu fekkee changer na baax na bu fekkee ñi ñi gëmuñu la nga dem toog. mën lu ñu sama maam te di ko remercier di ko gërëm lu bëri c'est-à-dire elle m'a des principes yoo xam ne mosul bëgg ma wàcc la vérité cest li may def ni si Euh, si li ma yare si loolu laa nekkee donc je ne suis que mon destin c'est-à-dire gis nga PV e affaire bi c'est c'était c'était mon mon destin c'est-à-dire on était trois capitaines à SR commandant bi woo ma ne ma demal def ko donc bu fekkee dëgg dafa war a feeñ da ngay wax expliquer lu xew bu ma re bu ma reconvoqué demee wala nit interview moom feneen j'essaierai de dire la même chose je suis vraiment très honoré d'avoir servi pour ce pays. merci et je vous remercie.